سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي جولي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نغي لي نوي دي لين زيار دي لين بال حق دي لين بال دي نيانال الشيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في تويرال كو ولي مون نال ييب تي ينيكو لغيل سيرن توبا مو ديفكو نيم كو بغي ديكو نيانال سيدي ابو البركه ميغي خادمو نيك تي بوب نجابوت الشيخ محمد الفاضل اك مبولم نجابوت سيرن فضل الباكي جيب Euh, boo leen gisee jotaay bi mu am lu am solo lu ñu bëgg indi ànd ko yéen ci dundu jàmbaar ju màgg bi nga xam ne moom la ñu dëgmal bisam muy Cheikh Mouhamadul Fadal muy gërëm mboolem njaboot gi yëpp di jaajëfal baax a baax sëñ Ahmadul wi mi nga xam ne nii moom it euh, taxawaayam ràññeeku na lool ci bis bi euh, ñu teew fii ci ndigalam di sant yàlla bu baax na ci jataay bu am solo bii nga xam dañu ko ànd ak yéen di ci fàttaliku di ci nafar dunduk koo xam ne nii ku amal lislaam bi njariñ la ku amal aduna bi njariñ la waye rawatina jëmmi doom aadama waye rawatina jëmmi li di yoon mourid moy ak Cheikh al Fadal khadim rasoul Serigne fadilou mbake mom nga xamne aw turam lu siiw la ku tasaro la ci goxi aduna bi yeb ku jam ñi ëmbal ci cofeel la daw jëm ci mom te loolu lépp nek na jikkoom waye nek melom nek taxawayam bu sel mu borom ngeenel yo xamne ci wéru sel wi nu nek tay ci la feñ mi wéru rajab ñu tudde kazu muy ñaar fukk juróom-ñaar di wéru rajab ci la feñ niñ ko net le nga dégg mu nak ku saddik yonente bi alayhi salatu salaam dana lay mën a feñ ci dëkk bu sel ba di daru salam nako way kat ba waxe ne ci aama wasasin la feñ fa tuba amna ñu naan daru salam la boba ca moma at la mbër ma genn daaru di sañ ci Touba ñepi waru kon day melni ni dafa dajeeg at mi sëriñ bi sañ ci Touba di wasas ci la feñ jamono moom Cheikh Amadou Fadal ñu tudde ko yenenbi alihi salatu wassalam mu nekk ko xamne dafa soso ci jant ak wër jant bi di khadim rasul wër wi di soxna xawa bu zu waaye mu nekk nak mom ci bopam geej mbambulan xam eh, nga ne jant ben la weer ben la geej la lu ci nekk ca na mu toll ci dayoo ak melo loolu it lañu Cheikh Ibrahima Diop almachar yi misaal wax ne laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fa sirta bahran min al anwaari tazdaxiru yaa ngi sosoo ci diggante jant ak weer jant bi mooy xaadim rasul mi nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop almachari waxoon na ko ne al awliyaau nujumun wa shamsu ahmadu bamba wa hum ka misla uyuni wal bahru ahmadu bamba soxna bu su mu sell mu baax moom mu nga xam ne taxaway bu reey la am diko xamne dafa donu soxna jaaratullahi ma maryam bu sayyid nek melo yo xamne yu am solo la momit nek nekk way juróomu sell ba mu nek ko xamne yit mom Cheikh Mamadou Fadal dafa lambo mbolem fadaili ngene li yàlla yeb ndax dëkk bi ngene jamono moy dëkk bi seigne touba jëkk sanji mi daru salam waye yit li tawfiq ji bok ci mu fenc ci bisu aljumaa waye tew ci weru sel wi di rajabul fard nga xamne di wéru ngeenelu wu sell wu màgg nga xamne ci ashurul xorom yi ci la bok nekk koo xam ne it ci côté bokon làmb rek da ko fecc moy geejju ci xam-xam ci béréb yi mu wara jaar yëpp sëñ daam abdourahman lo mam Thierno ibrahima sëñ mam mor borom sham waye ku tedd ki cheikhul xadim it yaral ko bopam tagatal ko bopam ba jikko yu sel yi daje ci Cheikh Amadou Fadal mané suko tak ko takk la ko bindkat ba wax ne yabnul xadimi alladi yud'a bi fadlina ما نال فضلك لا أنزى ولا ذكر سبقت جيلك في علم وفي أدب وفي فضائل لم تظهر بها فكر wax ko ne ko yow ko sëñ Fallou lamboo nga ngëneel yoo xam ne ak tedd nga yoo xam ne ak baax koo xam ne xel mënu ko takk kenn mënta xalam say ngëneel ak sa tëdd ngay jikko ak sa baax waaye jiitu nga sa kem yëpp yow sëriñ Fadilu waaye yaa ngi leen jëddu jiitoo nag ci baax jiitoo leen ci xam-xam jiitoo leen ci ay teggin say ngëneel daal xel mënu koo takk di root mu nek ko xamne mo Cheikh Abdoul Fadal dafa jaayon léppam jënde ko ak talibé jaayay léppam aw yoonu làmp di muridun sadiqun la way kabron wax wax bim jaayante mu Serigne Touba yit dafa aw yoonu Cheikh Ibrahima Fall nek murid sadiq bo xamne ay jëfam wonenako ay melom jëf wonenako mu jaay it ak li dox digganteem ak Serigne Touba ta moy jariñ ndax Serigne Touba mo len ko waxon ca Jolof kéro ba mu woyé serigne Mor roqay busu Cheikh Massamba Mbacké Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim waaye Cheikh Amadou Fadal ne du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn du ma màggi kenn Cheikh Amadou Fadal jaay la nga xam ne ak juréelam waxoon ne biaxtu bu nu bil irada lakum li kay oza bi xar aada wa baada ma staraytumuha minni fa inni ahdaytuha lakum bi xeyri man man de li dox suma diggante yow jaay naa ko jënde ko ak taalibe loola mela la woo xam ne ci Sëriñ Fadilu moo tax ku ñuy wax sëriñ Saïd Mbacké sëñ bi mas na ko wax na ko xanaa Mouhamadul Fadal jaaxal na la mu ne ko ah Mbacké jaaxal na ma mu ne ko bala laaj yéem da nga may laaj lu mu doon mu ne ko Mbacké lu mu doon mu ne ko moom day lam amul lu may moom mu di ak njureel moom la jaay jënd ko ak sali bi daan na li mu defee xanaa kon kenn mosu ko def kon sëñ bi moom sax yéemu na ci meloo nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal defoon na ko muy jaay ak njureelam waaye jënd ko it ak ak taalibeem mu nekkoon koo xam ne it moom Cheikh Abdoul Fadal dafa bëggoon Serigne Touba bëgg bu yéeme waaye nag liggéeyal Serigne Touba it liggéey bu yéeme nek ko xamne it dana feñ ci bir ak bëggam sayxul khadim nga fekk ko ci bir ay mbindam ndax Serigne Touba dafa bëgg lu ma yonente bi alayhi salaatu salaam mboolem lu ñu wara a xoo ci xol serigne Touba nee na yonente bee ma gënal fatena ay soxna fatena ay naari góor fatena lépp bi man bi xubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fidatan wa khayla way Cheikh Mamadou fadali lolé rek la don ci Serigne Touba wax na hubbi lahu dahra yughni an xubbi siwa man dey sama xol man Cheikh Mamadou Fadal boo ko lambee xool ko doo ci fekk dara lu muy Serigne Touba Serigne Touba da nga ci fekk te bëgg gi ma ko bëgg nag yasidaadu fii ku lu xëy nin waxtu wu nekk saa su nekk rek man moom Cheikh Mamadou Fadal damay gën a sopp Serigne Touba di gën a bëgg Serigne Touba ba yegg ci Cheikh wax ne saf ko du moo añ loxobil xadimi fardan arab sama tuurug rongoñ jooy ñu ne lu tax nga tuur sa rongoñ ñu ne bëgg Serigne Touba sëñ Fallou nee na loolu euh, farata la mu nekk koo xam ne it dañ ko daan wooye xun mun faqir mooy Serigne Fadilou mooy ki nga xam ne mooy sàqum woy ñakk yi moo daan dimbale nit ñi mom Cheikh amadou al Fadal te yonnati bi alayhi salaatu salaam it amna lu waxon kon Serigne fadlu ngeenelul yàlla la waye moy ki gënal yàlla ci kaw suuf ndax yonnati bi alayhi salaatu neena al khalqu alxalqu yalullah ahabuhum ilayya anfa'uhum mbindeef yi moy njabatu yàlla ki ci gënal yàlla nak moy ki leen jar gën a jariñ te Serigne fadlu jariñ na julit ñi jariñ na ñu nekkul julit waye da ngay wax rek ci diñ mañe general wax na kep kuy doomu aadama luy mbindeef rek mo xam muy mala mo xam lu mëna doon sëñ Fallou jariñ na la ci wet gu rek gu mën a doon loolu moo tax dafa am melow nekkoon ci moom la ko benn bind ko doon wax ne yabnul xadimi lazi ma xalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaxatuhu sëriñ Fallou mooy ko xam ne tas yaakaari kenn mu ne amul kenn ku mas a am yitte abug bëgg waaxu wuti sëriñ Fallou te sa yitte fajuwut kon du xat saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu joxu la nga giijal Fallou xanni yu la kon loolu mela yoo xam ne yàlla jagleeloon na Cheikh Mahamadul Fadal radiyallahu taala anhu waaye mu nekk koo xam ne yéen nag saa yoo ko soppee am na lay jural man waddahu wadda min al axyaar wa man jafa wadda bil axyaar saa yoo soppee sëñ Fallu mu nekk sa biir xol bu ñuy lim gaa yu baaxee dañ la cay boole waaye safaan ba nag moom it safaan ba lay jur te loolu kon la sëñ Tuubaa ne woon xawal la di man taqaba wala yu faarixul xiyaara gis da ngay gis ne sëñ Fallu dafa bari yum nuroog sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa dana képp ku ma bëgg dootoo tàggoo gaa ñu baax ña waaye saa yoo bëggee sëñ Fallu it bu ñuy lim gaa yu baax ca lañ lay boole moo tax mu ne képp koo xam ne bëgg na Cheikh Abdoul Fadal dañ lay boole ca euh, gaa yu gaa yu baaxee waaye mu nekk koo xam ne taxawaay bu ràññeeku la am moo di xam ne yoonu murit dañ ko sos ci ñeent muy xam-xam euh, jaamu yàlla teggin yu gërëm benn bu ci nekk rek Cheikh Abdoul Fadal daf ko matale ci digganteem ak boromam matale ko ci digganteem ak Cheikhul Khadim matale ko ci digganteem ak jullit ñi bu dee liggéey serigne Fadilou ak liggey xolal yoon wi xon taxaway Cheikh Abdoul Fadal bëggug serigne Touba yu bari serigne Fadilou moko defal bokku na ci tay ji moy juma ji nek sunu ginaaw nga xamne nalu serigne Touba la bu jotté won ndigal li boroma may ko ko ci geejji mu nekkon lo xamne it serigne bi sunu texe ñun ñep da ci nekkon ndax serigne Touba amna lu mu ci deele won serigne Touba amna lu mu ci digge won waye xam ngeen ne lolu ay waxi kese duko def ay jëf ju mat mo koy waral Cheikh Mamadou Fadal bi mu nekkee jataayu Cheikhul Khadim te lu jiitu muy nekk jataayu Cheikhul Khadim kenn ku ne xam na ne liggéey jaamu yàlla rek moo nekkoon biram yor peru kurusam bi muy dal jàng alquran waaye nangoo bay loolu taxoon na ba eh, ku mënoon a joxe addiye la ndax fu dong yi mas a tàmbalee nawet jot ñu tàmbali mbay mi mu tàmbali kaamilam bu ñoppee ca seenu mbay mu noppi ci kaamilam boole lépp jëbal Cheikhul Khadim moo tax jumaa ji bi ko Serigne Touba naale ba wax ko ngir bëgg ko yéene moom waxoon na ne jumaa ji Serigne Touba liggéey fa Touba man Mouhamadul Fadal maa koy liggéey ba mu yegg ma ngëb doom ba te danaa ko jiite téeméeri ajjuma ak lu topp bu booba te loolu dafa ne mébétiifu Sëriñ Tuubaa la bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa la Sëriñ Fadul def ko mu sanc ay dëkk na ngir liggéey ndax xam ngeen ne yoonu murit yoonu liggéey la ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ah, ña ña gàcceeg adduna ak gàcceeg àllaaxira moo am te gàcceeg adduna li ko mën a saafara mooy liggéey te doo yàq gàcceeg àllaaxira nag mooy jaamu borom bi subhaanahu wa taala kon day mel ni liggéey ah, mënta ñàkk ci ab jaam ngir mu mën a def li mu bëgg a def sëñ Fallou nag nekk jàmbaari liggéeykat boo xam ne wane na ko tey jii ñaata dëkk la sanc dëkk bu ci nekk lu mu fa doon def tey boo demee ndindi gi nga xam ne moom la jëkk a jot ko ci ndigalu Cheikhul Khadim nga xam ne Serigne Touba ko joxoon ndigal lan moo taxoon mu di ko sanc boo demee Aliya lan moo taxoon mu di ko sanc boo demoon Madina lan moo taxoon mu di ko sanc boo demee Bogo lan moo taxoon mu di ko sanc benn dëkk Serigne Fadilu bu mu mas a sanc bu nekk lu mu ca jëlee ci liggéey da koy delloo ci jumaay Cheikh Khadim bi waaye faj ci yittee jaam ñi nag nga xam ne moo nekkoon koo xam ne képp ku ma sa ñëw fi moom rek am yitte tawat ko ko sëñ Fallou fajal la sa yitte loolu moo taxoon ni tey jii jëfi Serigne Touba ndax daana wax ne tool yi lu ci ñoree ci jumaa ji rek la jëm kon liggéeyal Serigne Touba moo taxoon loola melawoom nekkoon mu nekkoon koo xam ne bokkoon na ci ñi gënoon a ràññiku ci mënoon a liggéey aw nag nekk mbay ab liggéeyam nekk taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat la ba tey jii jamono bi seigne Fallou di nek seigne Touba dafa nek jamono bu bu bu bu bu doy war ndax xam ngeen ne ci jamono yi mom bi mi nek khalifa day tolok guerre mondiale bi nek 45 xam nga xam ne 39 45 nekk deuxième guerre mondiale nekk jamonoy crise nekk jamonoy jamonoy jafé nga xam ni crise euh, alimentaire wala crise crise économique bi dafa tambali won ci euh, années 1919 euh, waaye bi muy nekk xalifa deuxième guerre mondiale bi ñëw sëñ Fallou nag boole taxaw di tàggat nit ñi ci ab liggéey di tàggat nit ñi di leen yar di leen soññ ci tool ya di leen woon yoon wi ni jaar tey ba mboolem indiazaat yëpp nga xam ne naal yi nekkoon ci kanamam te bi ci gënoo a rëy nekk jumaay Cheikhul Khadim ji Serigne Fallou liggéey ko ba noppi nag xamaa xat kunta ta amalu yaa xadima kon même même teefu Serigne Touba la xem même teefu Serigne Touba la sëñ Fallou na ko comme ni nga ko bëggee woon noonu defale nañ xam ngeen ne dañuy wax ne jumaa ji mu noppee bañ taal lamp yi lamp Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine muy lamp Fall bam demé demee Ndindi julli ba sëlmal dafa jokkar bi sorol bi dal di wax ni rusulo wuñ la rusuloo wuñ la rusuloo wuñ la kon seigne touba lim beggol mo defar ko ko te mi ko jaare won ci yoon woowu di yoonu liggéey liggéey boobu moo taxoon it ñaata nit la seigne Fallu yobu Makka ñaata nit la seigne Fallu fayal bor ñaata auto la seigne Fallu jënd ñaata la cheikh Fallu seigne Fallu jënd ci ay ñanaaw mba yàlla leen te loolu lépp la ko waraloon mooy kas bul xalaal dagan lu lew mu nungu ko am ba meuna a dimbali nit ñi loola mo taxone dëkk bii tey ak mën a liggéeyam ak nangoo sax moom ak mën a dimbaleem moo tax daana jël aw nit yëkkati somm alal ju bari jox leen ngir buñ xëyee mu di ko jox ñenn ci biir dëkk bi ñoo xam ne sëñ Fallu danaan wax ne ñoom de séexuñu ba am mbooloo mu leen topp te liggéeyuñu amuñu dara dañoo ñëw ci dëkk bi rek ngir fekk si fi Sëriñ Tuubaa kon dëkk bi leen war a yor mu boole kook nag gàddul leen seen nafaxaat seen dépense yëpp sëñ Fallu amee woon kon boole woon na te luñ ko jox mu def ko ci Sëriñ ndax li tax liñ ko doon jox du moom la jël doon dunde liñ ko doon jox du moom la ndax tabaxal na suñ tubaa jumaa ju toll nii ba noppi dëkkee nag ci ay ay ay baraak moom Cheikh Abdoul Fadal waaye li gën a yéeme it mooy bàyyiwu fi lu ñu donn ndax lépp lu am rek def na ko Serigne Touba lépp lu mu amit def na ko ci jaami yàlla ba tax daana wax njabootam du ma leen fi bàyyil alal bàyyi lu ma leen fi alal waaye dinaa leen fi bàyyil barke te barke boobu macha allah suñ borom saxal na ko fi te dootu fi jóg ndax barke Serigne mooy barke bu dul jeex barakati waasiatun wa baaqiya baqaa umulku dihibaati saafiya kon barke bu dul dakk bu dul jeex mooy barkeb Cheikhul Khadim te loolu liggéeyal Serigne Touba lu mel noonu rek moo ko waraloon moom Cheikh Mamadou Fadal waaye mu nekkoon koo xam ne moom Serigne Fallou ci melo yu rëy yooyu ko suñu borom jagleel jikko yu sell yi nga xam ne mboolem tedd ngay jikko Serigne Fallou da koo lamboo woon ci nungoo jëf di soññ nit ñi tey jii bokk na ci ñi dàqoon a bay ci jamono bokk na ci ñi dàqoon a liggéey ci jamono bokk na ci ñi nga xam ne waxuma na jëmmi murit gi waaye li génn murid gi sax da nga fa daan fekk loxob Cheikh Mamadou Fadal mu di leen jàppale di leen dimbali ci la ñuy taxawal lislaam di ko dindal diine te loolu nungu woon a rek moo ko mayoon sëñ Fall bari woon ay jëwriñ lool yoo xam ne waxtu wu ñu ngi taxaw ci liggéeyu Serigne Touba bi ndax xam na ne li fi sëñ bi bàyyi batalee ko fi tam war koo yeggale war a taxawu murid yi war taxawu yoon wi war a yeggale sànce Serigne Touba yi nungoo liggéey ak ko maye woon Cheikh Mamadou Fadal taxawu melokaan yëpp loolu moo tax te yàlla may ko melo wu sell woo xam ne tey buñ ne sëñ falu rek ñëpp bëgg ko nga xam ne yàlla ko tabbal ci biir xol yi li sëñ Tuubaa naan yàlla tabbal na ma ci xolub ñi texe waaye ñi texe ñëpp it bëgg na Cheikh Ahmadou Fadal moo tax da ngay dégg lenn lu ne da ngay dégg njaagob sëñ Fallu da ngay dégg nangamu sëñ ba ci tiijaanu sëñ Fallu sax man am na ñoo xam ne xam naa leen dañuy wax loolu ngir lan makaarimul axlaaq ndax ila xarifin barrin man tasarbala libasu izzatin fa siitu atala jikko yu tedd la làmb moom sëñ Fallu nekkoon aji yërmande xajoo woon ñëpp mën a làmboo ñëpp li may faral di nett léegi léegi ne mas naa wax genn kilifa gane si ma kooku ne ko man de Mbàkke damay ganuk sën sëñ Fallou na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig lu woyof na tong ci kaw boo duus ñëwee na ko tonet mooy xajoo naa seeni melo ak ni ngeen mel nga xam ne dañuy wax ne mën a muñ baax na bañ a man bañ tooñ baax na waaye mën a muñ te mën a muñ tooñi nit ñi moom la sëñ Fallou boole woon boole ko yërëm ñëpp daana wax ne ni ma yërëm fi bindee fii day mel ni ganaaru jaboot gu boof ci ay cuujam benn cuuj sël ab ceeli wuti ko nan day jay dawee wuti doom ja ngir ngir fëkk ko yërmande ju ndey joojee am ci cuuj ba li ma am ci yërmande ji ma am ci mbindeef yi moo ko moom Cheikh Abdou Fadal xajoo woon ñëpp ci melo yu sell moo tax tey jii foo dégg sëñ fal yu góor sëñ fal yu jigéen boo doon seet du ma ne la ci yoonu murit waaye tey da wax ne bokk na si ñi ëpp aw turandoo ay turandoo ci àdduna moom sëñ Fallu te kat bari na ci turandoo yoo xam ne ñenn ñi xamuñu ko gisuñu ko dañ ko sopp ñenn ñi jikko ju sëñ Fallu jëflante ak ñoom tedd nga ju sëñ Fallu jëflante ak ñoom makaarimul axlaaq ju sëñ Fallu jëflante ak mu nekkoon koo xam ne it li gën a yéeme mooy ni mu doon dundal li fi sëñ Tuubaa bàyyi woon fi ne boo seetloo ci biir kër Cheikh Amadou Fadal ëtt boo fa dem rek da nga biir kër sëñ Fallu ci ngay fekk ëtt yoonu murid yëpp dajewaat tey jii da nga fekk turandoo sëñ Maam moo Jaara Borom Saam fekk fa Maam Ceerno Ibrahima fekk fa Cheikh Moudou Massamba Diop Saam fekk fa Cheikh Ibrahima Fall melo yooyu yëpp Cheikh Mamadou Xabbaan maanaam ñu baax ñooñ yoon ñëpp sëñ fàllu dafa wëlbatiku waatoon jaxasoog ñoom ngir jikkoom ju sell ji nekkoon ci moom boole ko kenn ku ci nekk tey boo doon seet da fekk ay taggam ci Cheikh Ibrahima borom daaroon moxti ataytu ilal mafa fi daarihil moxti liske chek wal xabdi ko cay fekk mu di ko wax euh, kaana Massamba lu ci nekk melaw wu ne la koy taggee jëf yu mel noonu kon ku mel nii nag ku ko yàlla baaxee war ngaa wax alhamdulilah sëñ Fallou moo nekkoon euh, nday euh, ak bàyyi jirim yi way ñàkk yi la sëñ Tuubaa doon wax rek waltu bashir bi yataama dawaama ansihim bi abaahum ku la xaynin loolu sëñ Fallou ko doon mooy xajoo ñëpp yërëm ñëpp doon day ñëpp doon bàyyi ñëpp kon nag bisama ngi dëgmal incha allahu war a doon kasu rajab incha allah doon ñaari fan ci weeru avril nañ ko wajal ndax soppé sëñ fallou sëñ fallou day na wax né sàmba xawma ma sàmba mën na mënu kanamam mënu gëna way du sàmba mi mom mën na kanamam mën na gannaawam moy dem doon la sëñ touba man sa kanam man sa lo wax yalla mu ne waw loolu la sëñ Moussa ko waxon sëriñ touba waye loolu mom la Cheikh mamadou Fadal manon te ba tay tay tay Cheikh mamadou Fadal mi ngi fajj ay yitte ñu ngi koy ñaan muy wuyu te kenn ku nekk ñu jëflanté mom lu xam kon kuy magal si na nga ñew andi yéne ju sel andi pas-pas bu dëgër am dogu gu leer xam ne lim am lepp liggéeyal yàlla ak bëgg Serigne tubaa moo ko ko mayoon bëgg Serigne tubaa jeex ti takk daana wax na sunu waa ji ñun dong ko am nga xam ne kenn amu ko nga xam ne loolu melo la woo xam ne jeex ci Serigne Touba rek moo ko waral bëgg Serigne Touba rek moo ko waral kon yàlla na nu yàlla fayal Cheikh Mamadou Fadal te yàggal fii ak njabootam ba liggéey bu am solo bi nga xam ne njaboot gaa ngi koy taxawee di ko defal Serigne Fadilou mu mat ndax adduna bi yëpp. adduna bi yëpp foo dem ñu ngi dundal bi Cheikh Amadou Fadal nga xam ne ñii daayira soppe la ñuy doon duñ doon sax taalibe Cheikh Amadou Fadal waaye sopp sëñ faloo tax tey boo seetloo ñaata kuréelu soppe Cheikh Amadou Fadal kon kuy ñëw andaale yéene ju sell xam ne maa ngi jëm sama soppe maa ngi jëm sama xarit teggin ya mat bul def dara ci ay niil waxtu wu nekk na nga fexe ba par profitoo jëf lu baax mooy di jàng xasida di jàng alxuraan di def sikar ziyaara dundal bis bi yal yàlla yàggal fi Cheikh Abul Baraka yagal fi njaboot gi yëpp noo ngi jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci jataay bi sëñ Modou mi nga xam ne moo ko doon coordonné ak sëñ Fallou mi nga xam ne moo doon filmé di jaajëfal baax sëñ Ahmadou Badé bi di leen gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaaro ci mboolem lawlu yow fallilo yaay Moustapha yaay Muntaxal yaay wàlliyu géeju mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallou